démb nag jàngoon nañ li nga xamante ni moom mooy waxtu julli yi tey nag ñu fas yéene jàng li nga xamante ni moom mooy shartaay julli yi mu ne faslum bunt bi teqale wax ka ak moroom ka fi shuruuti salaati ci shartaay julli yi mu ne wa shuruutu salaati shartaay julli yi tahaaratul xadasi mooy laab ci toj wa tahaaratul xabasi ak laab ci sobe minal badni bu tukkee ko ci yaram wa saw bi ak yére wal makaani ak barab nee na bokk na ci chartaay julli yi nit ki laab ci toj laab ci toj boo ko déggee mooy koo xamante ni tojle na moo xam dafa dem duus wala dafa ngelawal comme yi nga jaamu woon nga xam ne mooy yàq njàpp yi yooyu noonu bu la dalee mooy koo xam ne tojle na nan la siy laabee nag mooy mu dem jàpp su dee dafa war a jàpp su dee dafa war a sangu farata mu daal di dem sangu farata bu ko defee kooku noonu laab na si toj balaa ngaa julli il faut nga laab ci toj boobu noonu ak laab ci sobe laab ci sobe googu nag fi muy amee mooy ci yére wala ci li nga xamante ni moom mooy sa yaram wala si barab bi ngay jullee bu dee place bi ngay jullee dafa am sobe da ka war a raxas ba mu laab nga door faa mën a jullee sa yaram bi bu taqee sobe da nga war a raxas ba mu ba mu set nga door kaa mën a jullee na ko doon tamit sa yére bi ngay jullee su dee dafa taq sobe da nga kaa war a raxas ba set bu ko defee nga daal si door a mën a julli wa saturul awrati ak suturaal sa awra na ko noonu tamit bokk na ci chartaay julli nit ki suturaal li nga xamante ni moom mooy awraam bi dañu wax awra awra góor jigéen yépp wa istiqbaalul qiblati ak jublu qibla nit ki si dafay julli dafa war a dafa bokk ci chartaay julli mu jublu jàkkaaloo li nga xamante ni moom mooy pénku qibla gi nga xam ne ñépp foofu la ñu jublu moom mooy kaaba ga waru kaa mooy wa kalaami ak baay wax naka noonu tamit nit ki buy julli warta di wax lu dul wax boo xamante ni dafay defar julli gi amaa wax boo xamante ni amul benn njëriñ ne la loolu noonu dafa bokk sataay julli buy julli mu bàyyi wax jooju wa tarkul ak bàyyi jëf alkasirati bay aji bëri na ko doon tamit jëf yu bëri yi ngay def moo xam da ngay waxatu wala yu mel noonu jëf yu bëri yooyu noonu si julli nekk na loo xamante ni luñ bañ la nit ki buy julli dafa bokk si sartaay julli mu bàyyi yooyu noonu wa awratu rajuli awraay góor waxoon na la nga suturaal sa léegi nag mu lay jàngal li nga xamante ni moom mooy góor awraam moo tax mu ne wa awratu rajuli awlaay góor maa bayna surrati mooy lu nekk si diggante li nga xam ne mooy jëmbax ba ila rukbati jëm ba si bëti oom bi awraay góor mooy commencé si jëmbaxam ba si bëti oomam loolu noonu bu nga waxee suturaal sa awra bu amee lu suturaal loolu noonu bu ko defee matal na charte boobu noonu mën na siy jullee ak loolu wal maratu jigéen nag kulluhaa léppam awratun awra la maa adal waji sëf xar kanam gi wal ka fay ni ak ñaari tenq yi ñu ne jigéen nag awraam mu ne jigéen lépp war a la sëf li nga xam ne mooy kanam gi dafa war a muuru ba nga xam ne kanam gi kese mooy feeñ ak li nga xamante ni moom mooy ñaari tenq yi mooy ñaari loxo yi loolu kese moo war a feeñ ci moom à lu dul loolu moom warta feeñ ci li nga xamante ni moom mooy julleem dafa bokk ci sartaay julli mu matal yooyu wa tukrahu def na jul def na sib asalaatu julli fi saraawili ci tubay illaa isa kaana lu may dafa nekk fawqaha ci kawam shay'un dara nee na sib nañ nit ki jullee tubéy kase comme nga am sa tubéy rek nga xëcc ko ba mu mat sa jimbax bi sa yaram bi di feeñ ne ni loolu noonu sib nañ ko mu daal di koy def jullee jullee noonu noonu lu may ne sa kaw yére bi am na loo si teg moo xam da see teg yére bu mat wala nga teg si loo xamante ni dana mat ci sa kaw yére bi bu ko defee nga sol yére ak tubéy bu ko defee loolu noonu moom mooy li gën mooy gën nga jullee li nga xam ne moom mooy sa tubéy kase wa man tanajjasa képp koo xamante ni sobeewu na saw buhu yérem walam yajid te amut sawban yére xayrahu bu dul moom walam yajid te amut maa an ndox yaxsiluhu boobu dana raxasee bii ci moom aw lam yakun wala nekkul àndewu fa moom ma yelbisu lu muy sol xataa yaxsilahu ba mu koy raxas sax waxaafa tam ragal xuruujal waxti génn ak waxtu ba sallaa na julli bi najaaset yi ànd ak sobeem nee na képp koo xamante ni yërëm bi dafa taq sobe xam waxoon naa la daf nikki dafa war a laab ci li nga xamante ni moom mooy sobe léegi nit ki yaramam bi wala yére bi mu sol dafa taq sobe te amul beneen yére bu dul yére boobu noonu wala sax am na am na ko waaye amut ndox bi nga xamante ni moom la ko mën a raxasee maanaam tey yére bi tey maa amul ndox bi nga xam ne moom la mën a raxasee yére bi nga xam ne moom moo taq sobe maa amul beneen yére amul tamit ndox bu nga ko raxasee su doon amul beneen yére dañ naa ko mu raxas ko mu ne awma ndox bu ma ko raxasee moom mooy wala muy jid maa an yaxsiluhu bii amul ndox bu ma ko raxasee ñu ne léegi nag am koo xamante nii nag amul sax loo xamante ni moom la sol aw lam yakun indahu maa yelbis xataa yaxsiluhu wala sax amul loo xamante ni moom lay sol ba koy raxas wa xaafa xurujal waxti tam ragal génn waxtu bi salla bi najaasat yi dafay julli ànd ak sobeem bi kon bu kooku noonu dafay julli ànd ak sobeem am nga yére sa yére boobu noonu takk sobe dañ naan la demal nga jël beneen yére nga ne awma beneen yére ñu ne la jëlee yére boobu nga raxas ko nga nga fóot ko nga ne awma ndox bu ma ko fóotee ñu ne la julleel noonu mu am nga jullee noonu ak sobe gi fekk yaa ngi ragal waxtu bi génn amaa nag su dee nag maanaam yaakaar nga ndox bi wala yooyu noonu mën ngaa xaar mën nga yaakaar nga ne fii ak ci kanam euh, robinet bi dina tijji mën ngaa xaar ba waxtu bi di waaj a jeex bu ko defee nag nga daal di doral def li nga xamante ni moom mooy Euh, moom mooy nga daal di door a raxas ko daal di julli su dee ñëwul nga julli ak noonu maam li ñuy bañ daal mooy waxtu bi raw la loolu rek la bañ moo tax mu ne wax ne wala yaxillu du dagan taqiiru salaati yéexeel julli li adami tahaarati ngir ñàkkalaab daganul si jullit bi mukk mu yéexee li nga xamante ni moom mooy julli ngir ne dafa laabul rek loolu noonu mu bu waxtu bi demee bay waa jeex daal bu ko defee rek na julli am na mu mënti mel dégg nga bu man faala ku def na mu zaali loolu faqad asa mooy na rab rabbu boromam képp koo xamante ni yéex nga julli ngit ak laab wala ngit ak sobe goo xam ne moo la tax nee na bu ko defee kooku noonu mooy na li nga xamante ni moom mooy boromam soo amul ndox nee la nga tiim na ko noonu tamit sa yére bi su taqee sobe amoo beneen yére bu dul moom nga ragal waxtu bi génn nee la nga jullee ko noonu kon képp koo xamante ni julli nga toog nga ba waxtu bi jeex julli woo ngit ak laab wala ngit ak yére bu taq sobe nee na bu ko defee kooku faqad asa mooy na rabbahu boromam def na bàkkaar bu mag wa man lam yajid képp koo xamante ni amut maa yestaru maa yestaru maa yestaru loo xam ne dana suturaale bii ci moom awrata wa awraam sallaa na julli uryaanan di aji rafle nee na képp koo xamante ni amut loo xamante ni moom lay suturaalee awraam maanaam moom amul yére daal dafa toog amul li nekk na foo xam ne amul yére amul dara julli jot mu war a julli nan lay def ñu ne kooku sallaa yàlla dafay julli ak yaramu neen ni mu mel noonu noonu lay jullee ànd ak mu ñàkk li nga xamante ni moom la sol wa man axfa képp koo xamante ni mooy na mu alqiblata qibla gi aada ah, na ko baamtu fil waxtu ci waxtu wa képp koo xamante ni da ngaa mooy qibla gi maam ñëw nga di julli euh, xamoo qibla bi fan la wala sax euh, yow julli nga mais après da ngaa découvert ne nekkite man ni ma taxawee woon noonu du qibla bi maam tey da mooy qibla gi bu ko defee kooku dañ naan ko mu baamtu ko ci waxtu ba rek su dee waxtu bi génn gut mu baamtu julli gi jublu qibla julli ko su dee waxtu bi génn na nag bu ko defee nag jégal nañ ko. mu ne muy leeral mu ne wa kullu iaadatin bépp bamtu fil waxtu ci waxtu wa fay moom fadilatun ngeneel la bépp foo déggee ñu ne la dafay bamtu ci waxtu ba rek jàppal ne bamtu gi ngay bamtu noonu ngeneel la rek soo ko bàyyee nekkul loo xamante ni waajib la lu war la force danga war a bamtu déedéet dañ koy sopp rek nga bamtu ci waxtu ba bu ko defee boo bamtoo balaa waxtu bi balaa waxtu bi génn euh, ba maam tey boo bu dee fekk na la ci waxtu bi nga bamtu ko lu ngeneel la amaa bu bi génnee moom bu ko defee loolu moom jégal wa kullu lépp loo xamante ni tuaadu def na baamtoo minu ci moom asalaatu julli fil waxtu ci waxtu wa fala tuaadu du baamtu minu ci moom alfaitatu aji faat lépp loo xam ne neneen la ci waxtu ba lañ la koy nga koy nga koy baamtu su waxtu demee ba faat jéggal nañ la ko doo ko baamtu wan la ak lu mel ni naafila naka lu mel ni la nga xamante ni euh, sa coobare bopp rek yow yaay jël nga war la nga warlu ko sa bopp nga def ko rek naka noonu tamit yooyu noonu su paasee nekku dalay war nga daal di koy euh, fay su la rawee rek boo bàyyee rek jéggal nañ la ko kon tey foofu la ñu yem ci li nga xamante ni moom mooy chartaay julli yi après beneen yoon incha allah danañ gën a leeral ci farataay julli ak sunnaay ak ngëneel yi incha allah in uridu illa al islaax ma sataat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu